aousubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñeenti ni yeewoo ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw di rafetu seen ànd ak rajo télévision wal fajri tey wal fajri ñëwaat ak thème d' actualité thème d' bi nag ñu duppee ko Panama Papers di ay tooxi doon yoo xamante ni itam jàpp nañ ne yàgg nay daw gën yëgu ko waaye itam ñu jékki-jékki rek comme niñ koy defee comme nañ defe woon ci Swiss Leaks dal di koy génnee ab liste bu gudd ci ay nit ñoo xamante ne ay borom réew lañ woon wala ñu nekkoon mu nekk bi léegi ay borom réew ay borom barke ay nit ñoo xamante ni itam kenn xamu leen waaye ñu am alal ak ñeneen ñoo xamante ne dañ leen xam ci biir àddina bi ak nit ñu siw ñooñ ñëpp nag bi ñu gisee liste bi mu gudd lool ci loo xamante ne mu ngi aju ci alal boo xamante ne ñu ngi koy làq ci ay banque ci réew yooyu nga xam dañ leen duppe ay paradis fiscaux paradis fiscal nag di ay réew yoo xamante ne ci wàllu lempo bi ñuy teg ci alal yi nit ñi yore dafa mel ni foofu daal loo xamante ne fa la woyofee fa la yombee tax ñu bëri itam di fa denc seen xaalis xaalis boobu nag nga xam ne seen bopp seen borom ñoo ko liggéey teg ko fa ñuy naan nag ndax amuñu droit ba def ko foofu seen sañ-sañ la ndax buñ ko fa defee lan la mën a wàññi seen réew bu wàññee seen réew ndax am na itam mooy politique ak juridique yoo xam ne war nañ ko mën a def ba nit ñooñu nag ñu wooñaar seen loxo ñu ñëwaat ci seen banque ndax dañu wax li ñu wax toujours fraude ak évasion fiscale xam ne am na lu leen wutale ba tax nit ki itam bu yoree alalam am fu mu ko denc ndax danga koy ne fang ko denc ku bëgg réewam du ko dencee noonu wala du ko dencee foofu wala danga koy ne nag li nga denc foofu tey nga jële ko indi ko fii ci yooyu dal nga xam diggante moral ak éthique ak règle yi nga xamante ni noo régir wàllu commerce ci la mbir moomu di éclate toujours di indi ay waxtaan ñu yàgg cay waxtaan nag waaye mbir mi ñu gis ne at mu jot wala ñaari at ñett yu nekk ñu indi ko waaye itam la cay topp lañ dul xam ndax dina am ay sanction dina am suivi yooyu yëpp nekk ay laaj yoo xamante ne dinañ ko ci faral di laaj ndax dañuy jaare noonu rek déggaat rek ni mbir mi kenn waxaatu ci tax ñu prier ci ay nit ñoo xamante ne tey fas yéene nañoo yaatal ak ñoom waxtaan bi ba xam lan la mën a jur ngir gindi askan waaye itam wane ndax am na yoon buñ mën a am tey bi lu mel nii itam ñu fexe ba xeex ko ci biir àddina si kon tey ñu ngi fi ak ki nga xamante ne monsieur Babacar Diame di maire de Foundiougne bokk ci APR nekk président commission finance assemblée nationale monsieur Diame ñu ngi lay nuyu. merci beaucoup Ousmane maa ngi lay nuyu maa ngi fi ak professeur Maïssa Ba ba ngeen miin ko ci seen plateau. mu ngi koo xamante ni itam xam dafa màcc ci wàllu économie ak lépp lu aju ci géopolitique ndax itam lépp dafa am ay relation Maïssa Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ousmane. maa ngi fi ak kii di Sang Mbacke Laay Sang Mbacke Laay ñëw ci turu parti démocratique sénégalais Sang Mbacke Laay maa ngi lay maa ngi fi ak sama naataango Pape Ndiaye di journaliste chroniqueur ci Walf TV ak FM nekk itam journaliste Walf Quotidien Pape Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafet seen teewaay fii ci suñu plateau. dañu dem ci régie bi daal di seetaan benn reportage boo xamante ne ci la ñuy campé sujet bi bu ko defee ñu xool ak askan wi nga xamante ne dinañ ko suivre déglu ko naka la mbir mi tëddee ak lan moo waral coow li nga xam ne ñu ngi koy duppee euh, euh, Panama Papers. bu fekkente ne waa régie pare nañ ñu seetaan reportage bi ci Birame Ndiaye def kon ñu déglu Birame Ndiaye. Panama Papers doon tur bu ñu duppee lu tolloogu fukki millions yi document ak lu tek te muy tuumaal lu tolloogu téeméeri kilifay politique ak ñeent fukk yu bokkee ci juróom fukki réew ak ay société yu offshore yu ñuy duppee paradis fiscaux bokk na ci ay njiiti réew ay borom alal ak yenn ci ay banque économiste sénégalais bi de Meïssa mu ngi scandale bi mun a def ci wàllu koom ci biir réew mi ak ci bitim réew. nguur gi day na perte lu bari ndax lempo bi waroon dugg du dugg ñaareel ba xaalis bi su fi desoon banques yi dañuy bëri xaalis lu ñuy wax épargne te épargne xam nga moom moo yor koom ñetteel ba. investissement bi ñu waroon a def daw nañoo xaalis ba dem na kon investissement dootul amati. li mel tax na mais sa baabu di joxe ay pexe yu ñu mun a def ngir feggu coow li ni mel. loolu moom dama ragal nañ ñoom dañu war a euh, jël li ñuy wax disposition boo xam ne nii maanaam ab kuréel boo xam ne dañ leen di tàggat ci loolu ndax loolu gendarmerie bu bees la gendarmerie wala police boo xam ne nii dafa xarañ te xarañaan boobu dañ ko am lu ñu koy jàngee ji suñ ko jàngee ba man ko état bi am volonté bàyyi leen su leen bàyyee ñoom ñu commencé topp xaalis yooyu suñ ko toppee danañ ko gis. ci plan international que ku mel ne Nations Unies wala kuréel yu mag yi daal. àddina bi ñu teg loi bu leer ne réew muñ dégg. ne xaalisu bu bon boobu mi ngi dugg ci sa réew yow yaa leen yaatal ndax duñ fay ñu jàpp la amaan la euh, teg la ay daan yoo xam ne nii kon benn réew dootu ko nangoo def. kii nga xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu koom moom mu ngi fësal ne CREI yi am na liggéey bu fekkee ne nguur gi xar na ci tànk tubéyam. waaw CREI yi am na war na mën a am liggéey bu fekkente ne état bi am na volonté ndax CREI yi am na droit topp xëy na euh, alal ba xam sax ndax alal ba lew na. waaw loolu dèjà ci prérogative am la ñaareel ba mooy kër yi war na mën a topp koo xam ne nii xëy na dañ ne xaay bi daf ko génne lam ci war na fay fayu ko bari na daal ma jàpp ne xëy na euh, kër yi euh, ci jànguma droit bu bari nag mais ma jàpp ne war na ci mën a liggéey surul kër yi daal tamit ab tribunal boo xam ne nii kuréel bii ma lay wax képp kuñ topp war na ko mën a woo ne ko dañoo dégg ne wala gis nañ ne euh, lii am nga ko kon nag wala lii la yoon wax wala la la yoon wax. scandale bi ñu duppee Panama Papers mu ngi wéy di suli ay mbóot bokk na ci ñenn ñu ñu joxon baaraamu tuuma ay doomu réewum Sénégal ba tax ñuy laaj ana fañ lañuy mujje mujjee ak scandale bile. voilà kon reportage bu Birame Ndiaye pour ñu débat bi euh, Babacar Diame yow nga nekk président commission finance assemblée nationale bi nga déggee fii ak ni ko professeur Maïssa Babou Kampé. yan xalaat nga ci am yoo xamante ne aju na ci mbir moom ak loraange yi ci tiit ci wàllu kaw hmm. merci beaucoup Ousmane d'abord maa ngi remercier suñu mawla yi toog fii pour échanger ak ñun ci débat bi nga xam ne débat bi la boo xam ne c'est des thèmes d'actualité yoo xam ne dafa toucher dossiers yu bëri euh, di gërëm la sant di nuyu aussi euh, Sidy Lamine et toute l'équipe de Walfadjri Euh, xam nga euh, le pays on été créés par des hommes mm. nit ñi dañu évoluer euh, ci sphère boo xam ne ku ci nekk da ngay seet mm-hmm. lan nga mun a créer lan nga mun a liggéey pour mu juralal loo xam ne di nga ci mun a investir faj say jamono bi euh, disons que création monétaire euh, développement économique croissance euh, activité yëpp dafa nekk ay activités communes yoo xam ne tey dafa laaj une certaine organisation la société dafa war a dañ ko organiser euh, tey une entreprise bu nekk Sénégal wala mu nekk n'importe où dafa am réglementation boo xam ne day am kañ nga war a créer entreprise noo ko war a créer soo ko créer aussi ressources yi nga xam ni mooy ngay réaliser mu ngay mu ngay am ci entreprise bi euh, lan nga ci war a génnee fay impôt lan nga ci war a génnee fay say salaire lan nga ci war a génnee def ay investissement lan nga ci war a génnee donc am loo xam ne yow di ko mun a partagé ak ñi nga xam yéen a bokk entreprise bi. ko tey euh, dafa am ay pays yoo xam ne très fort yoo xam ne tey euh, comme ni ngeen ko waxee euh, les paradis fiscaux. Hmm. yoo xam ne dañoo am ay institutions financières yoo xam ne kenn mënu leen dara parce que la banque mondiale bi nga xam ne mooy réguler le système monétaire et financier. fi mu nekk ni amul benn loi boo xam ne mun na interdire telle ou telle personne ou tel ou tel établissement ah nga donc liggéey donc dans le domaine financier nga installé wu dans tel ou tel pays pays boo war a dëkk dem da nga war a respecter loi ba donc euh, boo gisee tey euh, scandale yi ngay dégg yëpp muy muy euh, des des personnalités des hautes personnalités wala quelle qu'elle soit quelles que soient les catégories sociales dañu am xaalis euh, boo xam ne au lieu que ñu déclarer ko intégralement dañ koy jël déclarer une partie pour échapper à l'impôt boo déggee ñu naan fraude fiscale loolu la fraude fiscale booy nga am cent déclarer dix mhm. xam nga boo amee cent war a fay trente d'impôt boo déclarer dix trois ngay fay mhm. loolu mooy fraude fiscale maanaam da nga jalgati. li la loi bi sant defoo ko. loo ko waral mooy da nga bugg am plus de profit da nga am beneen dexonin. te loolu dinay lor koom bi. loolu dafay lor entreprise day lor état bi. dana lor état bi dina lor entreprise su ma parce que état bi le fait que mu la war a dugg duggul day réduire ay moyen parce que boo seet le budget de l' état budget d' état bi yàlla a les recettes et non fiscales. recette fiscale yooyu bu fekkee ne li ñu ñëw fay fay impôt feeñ ko lañu ñu war a déclarer déclaré ñu ko loolu perte la pour état mais perte la aussi pour li nga xam ne ñu ngi def fraude ndaxte la nga fraude am ñi dugal ko foo xam ne nii nañ ko xam oui donc dans le domaine de l' parce que loolu mooy inconvénient donc des deux côtés am na inconvénient li nga xam ne mooy euh, yeneen réew yi nga xam ne am nañ de grandes gestions financières yoo xam ne kenn mënu fa teg loxo nga dem ubbi compte nu la neexee compte ba kenn amul accès compte ba lu dul yow mi nga xam ne yaa ko ubbi ak ka nga xam ne mooy gérer compte bi dëkk réew ma sax si boppam amuñu droit ñëw dugg sa compte ba parce que y a la confidentialité confidentialité et cetera à respecter mm. donc Euh, lii am nii waroon ñëw te ñëwut liggéey dans une waaw <coughs> xam naa am nga ko boo xam ou ailleurs di ko gérer librement donc mu nekk loo xam ne euh, euh, ci su il faut que mu am bu amee nag su boobaa ci toom ya nga xam kër yi dañ ko créer pour seen doxalin yu saytu ko pour dañu nit ñi njub nag CREI mën a mais CREI tey dafa am limite aussi mhm. parce que tey bu amee évasion fiscale par en Suisse CREI mhm. voilà loolu boo xam ne parce que ku nekk patrie entreprise lam liggéey euh, et cetera loolu mooy soo xalaat jalgati nag hmm. wala ku ci def leneen hmm. yoon war boobu sax laaj nga xam ne tey yoon mu ngi dal ci ay kaw nit ci wàllu koom ak loo xam euh, jërëjëf Ousmane maa ngi lay mbirum le fois suñu ko déglu yëpp je pense que wala euh, doo ko dund ba tax na bi euh, scandale bi génnee muy scandale Panama Papers yi euh, touché ay personnalités yu bëri ci àdduna bi di bouleverser actuellement la donne mondiale à tous les niveaux même boo xoolee au niveau du sport tey jii loolu rëy surtout mais rappeler rek ni euh, scandale bu xawa a mel nii amoon na fi yaakaar na daaw ñu koy doon woowe Swiss Leaks moom benn banque suisse boo xamante ni ay personnalité africain yu bari dañ fa demoon doon rawale xaalis bi scandale boobu jibee aussi mu nekkoon lu yéem ñu baree baree baree bare yaakaar naa ni sax su ma juumul am na benn autorité sénégalaise buñ ci tuddoon yaakaar naa ni ministre la ci gouvernement bi am na groupe de presse bu mag mais loolu après aussi euh, on se demande exemple présent pourquoi autorité sénégalaises yi ne se sont pas autosaisies pour leeral loolu alors euh, ni mu demee nii ñu tudd ci lii ay autorité africaine euh, parmi cela je pense euh, am na ci koo xamante ni am na passeport sénégalais passeport diplomate passeport diplomate euh, muy Seydou Kane et donc ak ay kilifa yu bari yoo xamante ni daal mbir mi euh, doy na waar alors donc au gouvernement Sénégal par rapport ak situation bi ban taxawaay lañ ci war a am pour quand même ñun Sénégal sunu économie sunu koom-koom ñu mun ko préserver moo doon benn comme ni nga ko waxee ñu jéem a clarifier mbir mi xool ñi ci bokk naka la tëdde naka la demee foofu damay ubbi benn benn brèche pour leeral ñaari terme yoo xam ne dañ koy faral di wax ñu bëri di ko jaawatle muy évasion fiscale euh, ak euh, paradis fiscaux maanaam des entreprises offshore parce que boo déggee entreprise offshore mooy comme dëkk bii seeni loi fiscale xaw naa diis donc damay préférer délocaliser sama activité beneen dëkk boo xamante ni seen i loi fiscale maanaam woyof na alors donc loolu am na nu muy demee bu fekkente ni yow say activité ci réew mi nga xamante nii euh, maanaam nga nekk Sénégal di fi def activité délocaliser sa xaalis yóbbu ko feneen te déclaré woo ko loolu day daal di dugg day daal di euh, dugg su le coup sous le coup de la fraude fiscale ndaxte fraude euh, fiscalité képp kuy liggéey activité booy def da nga ko war a fay état bi donc beneen beneen terminologie bi ñuy utiliser donc muy euh, muy euh, muy euh, muy muy muy muy muy muy évasion fiscale alors mooy mooy mooy mooy mooy mooy loolu da ngay gis donc évasion fiscale day daal di mun a jural économie Sénégal ay yàqute yu bari yoo xamante nii état bi donc étant donné que am na ay kilifa africain yoo xamante ni am na ñu am passeport diplomatique sénégalais tudd nañ leen ci am tamit euh, ci bi jiitu ay kilifa yoo xamante ni nee nañ ñoo ngi ci nguur gi te ñu tuddoon leen ci vraiment euh, du ñu am euh, maanaam séentu lu dul gouvernement bi jël ay dispositions ngir leeral sénégalais yi Euh, ci loolu fi may daanelee rek mooy je suis vraiment heureux à ce que monsieur Diamé tout à l'heure bi muy wax dégguma ko benn yoon contrairement à certains de ses amis de l'APR information yi ñu génne jamono yi ci télé yi ak ci rajo yi di ci tudd euh, sunu frère di sunu candidat ñun PDS Karim Meïssa Wade alors donc je suis tout heureux de voir que moom vraiment tudd ko parce que comme euh, ni ko ñëpp xamee euh, euh, Panama Papers yi amul benn yoon boo xamante ni tudd na Karim Wade loolu vraiment je tiens à le préciser donc mu mu leer. Ousmane euh, mbir moom nga xamante ni moom la ñu tuddee Panama Papers euh, bu fekkente ni dëgg la euh, ça veut dire que Sénégal état amu fi ndaxte dinaa wax lu tax ma ni lu bu fekkente ni loolu dëgg la ndaxte daal le passé gis nañu ay information yu mel noonu yu génnoon yoo xamante ne day impliqué ay Sénégalais mais ba ñu demee ba ci biir dañoo gis ne loolu ndekete dara du ci dëgg moo tax may laaj ne mbir mi bu fekkente ni li ñuy wax dëgg la parce que de quoi il s'agit dans l'affaire dafa am ay sénégalais yoo xamante ne dañ ciy tudd par rapport ak évasion fiscale bi nga xamante ne eh, ñu ngi koy estimé à hauteur de 20 milliards bon même bu fekkente ne ñu bëri dañu focaliser wu ci Mamadou Pouye sax du Mamadou Pouye kese am na yeneen sénégalais yoo xamante ñu ngi leen ciy tudd gis nga réaction bi nga xamante ne Atepa def na ko dem ngir seetal boppam parce que moom tam dañ ci tudd ak tamit tey ñeneen ñu mel ni ñoom Yérim Sow et alors dans le gis nañu ne ay xibaar yu mel noonu daf ñu génnoon di biir gëstu ko dañu gis ne loolu nekkul dëgg loolu bëri na ñu mën ci joxe ñaari exemple muy mbirum compte bancaire bi nga xamante ne keroog ba crédit du ba nga xamante ne clôture na deuxième information judiciaire bi mu tijji woon dañu daal dafa am benn expert bu génnee information boobu bi ñu demee ba ca càppaandal ga créé war a joxe dogal dafa ne indiluñ ko benn information buy wane ni compte bancaire bu Singapour existé na mu daal di koy écarté ci li nga xamante ne moom mooy chef d' yi loolu loolu mbir boo xamante ne am na ci dossier bi nga xamante ne moom mooy leneen loo xamante ni ak également am na ci muy mbirum li nga xamante ni moom mooy aéroport bu Malabo également gis nañu accusation yi ci am yëpp bañ demee ba ci fin wu enquête bi dañ ko ci écarté parce que ay mbir la yoo xamante ni du dëgg donc loolu yëpp pour wax ni parrainage mën nañu am ay information yoo xam ne dañ koy véhiculer wala boog ay xibaar yoo xam ne day génn ci àdduna bi te parrainage dëggantaan du am moo tax ma ne bu fekkente ni li nga xamante ni moom la ñu wax li ñu tudd ci scandale ak sénégalais yi ñu ci tudd ak li ñu ci wax yëpp évasion fiscale beeg fraude fiscale beeg li ñu ci wax yëpp bu état amu fi ndaxte li tax mu wax loolu mooy Sénégal am nañu CREI muy cour de répression de l'enrichissement illicite Sénégal am nañu une loi sur le blanchiment d'argent Sénégal am nañu code général des impôts mais bu fekkente ni dispositions yi yëpp am na fi ba pare évasion fiscale di fi am fraude fiscale am je pense que état bi am na benn faiblesse boo xamante ni côté boobu am na ci wàll yi

yoo xamante ne bu fekkente ne kon commission rogatoire yi mënuñu euh, desale lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu googu ça devient extrêmement grave te war nañ ko remettre en cause boo paree ci créé nga nga xamante ne ay loi la yoo xamante dafa am blanchiment d'argent ak yeneen ak yeneen ak tamit euh, li nga xamante ne moom mooy code général nga xamante ne euh, am na fi kon léegi lan mooy problème bi est-ce que ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum ci war na est-ce que ñoom boobu def seen liggéey ni nga xamante ni noonu la waree la boo xamante ni euh, ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy samp waaye tamit euh, bu weesoo loolu noonu également yeneen banqaas yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk te di lutter contre lépp loo xamante ni jëm na ci évasion fiscale ak fraude fiscale te mm-hmm. yaakaar naa ni différence bi sama naatango bi expliqué na ko léegi bu fekkente ni mbooleem disposition yooyu nga fi nekk yëpp évasion fiscale mën na fi am fraude fiscale mën na fi am sans pour autant que benn ñu décelé ko xam ni génn dem na mm-hmm. fonds yi génn rapatrié nañ ko ñaareel bi tamit bu fekkente ni décelé nañ ko quelque part dans le monde amuñ possibilité pour delloo wasiwaat ko mu ñëw ci réew mi loolu nekk na mbir boo xamante ne mbir mu doy waar la boo xamante ni maanaam ay faiblesse yoo xam ne day am ci état bi parce que tamit gis nañu ne dossier boobu nga xamante ne moom mooy enrichissement illicite ak vague bi ñi njëkk a topp dossier bi clôturé nañ ko mais gis nga ci ginnaaw gi bis bu yàlla sàkk ñu ne la bërëb sàngam ci àdduna bi gis nañ fa ay gis nañu fii compte gis nañu fii compte dinañ ko indiwaat donc léegi ñuy interroger wu man damay poser question di laaj commission rogatoire xamante ne la lancé woon nañ ko lan la jëriñ ñu ci doon def yëpp ak xaalis bu bëri bi ñu ci dugal yëpp pour dem wër fonds yooyu noonu indi ko décelé wuñ dara gisuñ dara ba ñu dem ba procédure bi définitive parce que la condamnation est devenue définitive mm, ñu soog a décelé yeneen compte bancaire yu nekk feneen ak feneen loolu également dañu euh, mbir la boo xamante ne mën nañu er, interroger véritablement ci commission rogatoire internationale yooyu donc yooyu ay mbir la yoo xamante ne yu fi mm-hmm. nekk yoo xamante ne peut être benn bu euh, mu war am ci suñu koom parce que boo seetee tey ñaar mën na am fekkente nit ñooñu seen xaalis bi dem ci biti dem nañ ba tere leen ko wala ñu am ci tiitaange mhm. peut-être ñu téye seen xaalis loolu itam nar a jur loo xam ne dina dem wàcc ci banque yi nga xam ne ñoom ñoo waroon di jot xaalis bi muy circuler te loolu tam li tax mu koy ñu koy gën a def yaakaar naa am na taux aussi yoo xam ne banque yi dañ leen koy imposer fii te amul feneen dëgg la mhm. jërëjëf Ousmane maa ngi lay nuyu di nuyu sang bi sëñ Sidi di nuyu suma sëriñ sëñ Sambàkke Daaru Salaam ngi sargal honorable député Diop ak eh, Babacar <laughs> hmm. ak Pape eh, Ndiaye moo koy suivre man ci fan ak suma sëriñ laay laay en eh, fait secteur compliqué xam nga xaalis moom su commencé bari rek nit ki dafay xelam dafay commencé wax nu ma koy sauver wala nu ma koy yokkee Euh, te comme que dañ ne dafa sax ci xol euh, da ngay gis ku nekk jéemu essayé daal ku nekk ak say méthode xanaa wax ne par exemple euh, ñu ngi wax évasion bi loolu moom mooy ñiy daw te ñaari façon la kenn ki day toog fii xaalis bi dem mu demul loolu mooy évasion bi te xaalis bi nag ñu ci def ndànk parce que léeg-léeg mu lew la waaw parce que il faut que suñuy sénégal yi ñu leen di wax aussi loo xam ne parce que souvent nit ñi askan wi dana dal ci nit fekk deful dara xëy na faute su amee sax foot ba garaawul garaaw buñ koy tëree daal laa bëgg wax xam nga ki liggéey xaalisam def ko ci banque banquier yi seen bopp ñoo lay woon yoon wi ñoo naan la yow doo ci feeñ man mën naa ko génne jaarlu ko sax sama tur yóbbu la ko France nga fekki ko fa sàccal na la ndax da nga war na fay ay lempo fayu ko mais xaalis ba sàccoo ko daf la lew doom honnête il faut ñu bañ souvent euh, dal ci kaw ay honorable nit yoo xam ne nii pour ñu apaiser kii bi daal euh, l' espace mm. là. maanaam infraction infraction bi moom am na. mais nekkul une tare morale war na ko jàpp mm. li Papa wax dañ war na ko topp war na ko jàpp mais il faut que dama wax ne am na ci ay xaalis yoo xam ne sollicite mm. waaw mais nag eh, la nga def moom mi ngi fi mooy da nga war na fay lempo génne ko te attention am na ci système yoo xam ne nii comme si américain yi. même soo génnee xaalis bi dem ñu xam ne yaa ngi Sénégal su la Sénégal taxé 5 te ñoom américains yi ñuy taxé 10 5 bi jëlee da nga koy fay. da day am benn ajustement ak benn compensation. Mm. mais dafa compliqué ba nga xam ne li ci euh, gën a garaaw bi ci gën a metti sax mooy bi. départ Dieu je la defe naa ne tubaab bi joué e ci voilà hmm. defe naa ne moom moo dem Union hmm. moom yóbbu bàyyiwul sax xaalis bi dem moom daa bokk xaalisam ànd xaalis ba dem changer nationalité ne leen yéen dëkk bi dafa seer man bàyyi naa dem changer nationalité hmm. loolu expatriation lañ koy wax fiscale moom moom ci nit ki dafa ànd ak xaalisam dem xam nga euh, li ci gën fës te ñun te sax de façon inconsciente fraude lay doon wala escroquerie fraude bi mooy li honorable wax léegi nga ñëw yor téeméer déclaré 60 déclaré woo lépp kon def nga fraude mais escroquerie bi mooy waxoo dëgg comprendre nga yaa dafa dafa dafa am benn nuance damay joxe exemple boo xam ne nii maa en France dama nekkoon nag dafa am ku ma xamoon daal benn sama mbokk bool bool day dem Italie indi camion euh, blouson à partir de la France mu ja mu defaat ci oto bi dara yóbbu Italie suy tëdd nii xaalis euro yi moom da koy ngaganaayoo man na 30 million waaye ne moom moom du def ba moom da koy ngaganaayoo moom. léegi xam nga France fin d'année da ngay def déclaration d'impôt léegi nag bi fin d'année bi ñu def déclaration d'impôt mu ne naa ko dem bindal ko moom mënul bind ma yóbbu ko mais mu ne ma del déglu li ma la wax nga dee ma ko waxal <laughs> ma ne ko waaw mu ne ñu ñëw toog rek mu commencé ne ma wax ko. ne ko ñeenti jabar ñaar fukki doom ak ñett xiif ba damaa sonn dama wax wax wax man aussi may traduire parce que man mënuma mm. trahir euh, li mu wax mm. ba à la limite la femme la ndeysaan bi ne ko ci guichet bi daf ko yërëm ne ma ne ko mu calme ma ne ne ko mu calme mu ne rek yow daal <laughs> ko daal calme daal après mu jox benn kayit ne man naa ko remplir ñu yóbbul kooku ci benn kii social daal mm. pour ñu jàppale loolu escroquerie la parce que waxoo dëgg yow nëbboo sax da ngaa waxul dëgg te loolu bëri na fii c'est-à-dire bi bi nga xam ne moo war a ne ci ñun dafa dafa manqué beneen cas bu terre à terre sama papa <clears throat> yàlla na yàlla yërëm moom c'est un commerçant en fait coffre bi ñu yore woon li ma leer mooy xaw ma ñaata mat na cent millions ba deux cent te moomu ko du lépp la moom c'est-à-dire ku amoon xaalis rek jox ko dix millions quinze kii di xaar mu mat vingt pour mu tabax këram alors que xaalis boobu su defee un an deux ans ci biir coffre-fort bi rawale nga ko enfin rawale du question rawale mais mais ñoom xamuñu woon normalement loolu déclaration fortune la daal mm-hmm. war na ci comme ni ci asaka ni ñuy fayee asaka mm-hmm. war nga ci mën a fay état dara mm-hmm. donc li ñuy li ñuy perte ci fiscalité ci de façon inconsciente ñenn ñi xamuñu ñi ci des il faut de fausses déclaration fii ci ñun suñu espace bi rek moo ëpp li ñuy perte ci li ñuy perte ci évasion évasion bi donc finalement euh, mu mel ni système bi mooy problème bi ndax nag nit ki soo ko sonalee wala nga bëgg koo rey saa waay il se défend nos états sont gourmands adduna bépp nag laay wax état yi seen bopp ñoo bëgg soo fayee ko xoolal footballkat bu mel ni Messi yor ay milliards millions par mois mënut mënut a lekk lépp su fayee koo nga taxé ko mu denc ko ca compte banque ba nga fekk ko ca compte ba. ci année bi moom daa mel ni tudd nañ ko ci. waaw waaw tudd mais il faut ñu rawale xaalis bi. Mhm. c'est-à-dire que loolu laa bëgg wax cest à mhm. quelque part. Euh, loo citoyen citoyen da dem ba nga xam ne yow xaalis bi en tout cas def système mel ni le système français moom soo ko fa bàyyee ñetti at ñeenti at moom dootoo fekk tërëm moom mhm. ki nga xam ne nag yow soo tabaxee kër ñu ne la fayal nga def ca location ñu ne la fayal xaalis bi mënu rëcc léegi nag ñaari façon yi mën a gën a rëcc dëgg-dëgg tey mooy nga jënd ko or denc loolu moom doo doo doo ca fay wala nga jël ko liquide tëj sa coffre-fort mm-hmm. loolu day day ay système aussi de de de de d'extirpation te am na fu muy euh, fiscalisation boobu voilà voilà voilà fiscal te loolu aussi dina te du système. Mm-hmm. Euh, te doo ca fay benn dërëm moo tax ma ne la localement. Mhm. nga avant ñuy wax sax ay évasion bi xaalis bi dem na nga localement rek suñu saytu woon euh, perte fiscale bi kenn mhm. xamul kenn xamul boole ko nag ak évasion maintenant évasion bi moom man man jàpp naa ne bon dafa dafa xare euh, il faut nga xarañ bon li ma ciy njëkk a wax ci Sénégal mooy il faut que aussi que ñun Sénégal aussi ñu am dispositif juridique boo xam ne nii du bi rek ak bu daaw bi la fair Diack c'est-à-dire que toutes qui ne sont pas bien fait te mu am écho autosaisine dafa war am parce que actuellement nii nii am na ay ministres yu démissionné ci àddina bi ay premier ministre mhm. am na ay tribunal ci ay réew yu jóg mhm. donc moi je crois que pour la bonne gouvernance il faudrait que yu mel ni scandale su amee qu'on éclaire l'opinion rek ñu xam ne diw moo def amul fi luñ koy nëbbal kenn kenn mu réew mi ñoo ko bokk mhm. euh, ñu xool kan la lan la def su waree mu fay la la ci war a am mu am ci ndax nasax bi muy nasaxal. koom bi koom bi dafa métti. mu mm-hmm. Ousmane. Mm-hmm. xëy na euh, soo ne milliard ne ñaari milliard rek lañ ci waroon a génne jar na ambulance. Mm-hmm. su ko waaj a fayul jar na ambulance. kon ñu jàpp ne euh, li muy li muy yàq bari na. honorable wax na ko léegi budget bi. Euh, am na ci peut-être tey beneen cinquante milliards tuutee tuuti tuuti wala deux cent milliards boo xam ne nii ñii daw. ndax dañoo daw ñii daw suñu suñu joxe ñu yokk ko ca ma jàpp ne jar na at mu jot benn perte nañ benn ambulance wala at mu jot école bu ñu waroon a tabax xëy na manqué na donc effectivement dinaa ñëwaat yeneen aspects yi des investissements yi ak banques yi mais il faut que ñu xam ne aussi euh, méthodes yi hmm. dañoo bëree bëree bëree ba du benn du ñaar évasion fraude rek yemu ca dafa bëri ay voilà ay ay façon yoo xam ne il faut nga ne un expert hmm. dans le domaine pour mën a disséquer xool juridiquement aussi sur le plan international ce que le droit euh, permet ne sur le plan local et cetera yooyu il faut des juristes pour éclairer nañ ci dellu soit léegi professeur Meissa Babou Babacar Diamé parce que ce que le droit prévu loolu boo koy xool tey ci ay nit ñoo xamante ne aussi dañ leen di tudd souvent <coughs> bu fekkoonte ne état bi comme ni ko Meissa waxee <coughs> amu ci sax prérogative yoo xam war na ko mën a xeex est-ce que jotul nag ñu jox benn suivi bu mën a tax au moins askan wi am lu leen leer ci mbir mi su boobaa aussi ñu am fuñ jàpp waaw oh, merci beaucoup je pense que leeral mm. différencier nañu fraude ak évasion. Mm. Euh, donc euh, mais damay tontu suma suma sëriñ bi mm. comme laay la sant. Euh, tudduma Karim parce que Karim taxu ñoo ñëw fii. dossier Karim pour. ci loi bi waroon def def na ko. li Sénégal waroon nag def def nañ ko maa ngi ñaanal simplement eh bien mu nekk ci jàmm salaam ba génn ci jàmm salaam pour retrouver vraiment sa quiétude eh, donc euh, tey li am importance mooy ñu cerner les problèmes xam nga euh, que ce soit la fiscalité que ce soit l'économie tout ça c'est dans un système le système bi bu déréglé rek mu am problème boo paree le trône le système fiscal sénégalais où vous avez la loi le code général des impôts qui réglemente justement qui organise tout ce qui est lié euh, donc à l'activité à l'impôt et cetera tey képp koo xam ne par exemple tey yaa nga bitim réew am benn entreprise boo xam ne moo la fi nekkal même boo ci amul action le fait que kooku réaliser la prestation rek code général des impôts daan na la pour que nga fay impôt parce que loolu la ñuy wax impôt pour le compte d'un tiers qui n'est pas installé au Sénégal da nga fay TVA da nga fay IRVM euh, da nga fay euh, impôt sur les sociétés fraude fiscale aussi code général des impôts daf ko daf ko daf ko dugal ci biiram tey un inspecteur des impôts buy contrôler une entreprise contrôle contradictoire lay doon nga xam ne dañuy set saytu li nga ju am ci recette la nga fay ci impôt est-ce que méngoo na ak la nga waroon fay bu méngoo la yor daan na la di nga ñoo xam ne dañuy fay ba pénalité cent pour cent donc loolu code des impôts réglementé na ko. application bi du poser problème. non application bi pose parce que inspecteur yaa ngi ci. waaye nag boo demee ci entreprise ba ku doon déclaré cent déclaré quatre vingt yow am ay éléments yoo xam ne mun na la permettre nga déterminer chiffre d'affaires bi ba xam ndax est-ce que kii lim déclaré méngoo na ak moom lépp sax da nga ci xam lu ëpp lim déclaré mooy obligé ñu redresser loolu c'est le rôle de l'impôt c'est réglé par le le général des impôts maintenant euh, fraude bi si boppam day pénaliser comme ni ma ko tout le monde le secteur informel boo ko seetloo tey l'organisation n'est pas parfaite waaw parce que ñu ngi am na ñu déclaré am na ñu dul am na ñoo xam ne ñu déclaré c'est pas suffisant par rapport ak parce que c'est un secteur qui n'est pas bien organisé ña nga mm-hmm. donc fraude fiscale day yàq réew li nga xam ne mooy évasion bi ñun Sénégal yaakaar naa ne sax pays bu tuuti lañ ci pays bu tuuti lañ ci évasion parce que beaucoup de pays africains ay responsables ñuy jël xaaj di ko yóbbu place ko feneen. ay chefs d'État au détriment de leur peuple. Hmm. c'est grave moi je su ma gisee doomu aadama nga jël xaalis yóbbu ko en en France wala en Suisse mu dafa nelaw ñooñu di ko jël parce que xaalis boo de ci banque waa banque banque ba ñu koy liggéeyee dañu koy placé di ci am ay intérêt di am ay produits financiers yow nga toog fii sa dëkk bu nga am problème nga jël sa xaalis yóbbu ko kooku képp koo xam ne constaté nañ ko dañ la war a yoon dafa je pense que tey il faut une loi internationale boo xam ne comme ça existe au niveau de l'espace IMOA où vous avez vous de l'IMOA qui sont transposées dans les différents États de l'UMOA et ces transpositions impose chaque État su boobaa day am euh, loi boo xam ne disposition boo xam ne ñëpp dañ ci sukkandiku tey une banque en Suisse qui reçoit de l'argent war na xam ku ko versé bu fekkee leer lañ bëgg bu fekkee dañ bëgg rek rek banque ba xam na ki ko versé waaw ki ko versé mën na nekk ko moomut ah oui comprends nga buñ ko versé xaalis bi fan la jógee mun leen demandé xaalis bu bu ne entreprise la jógee fu muy liggéey quel est son chiffre d'affaires quelle est sa situation quels sont ses investissements ay éléments yoo xam ne tey buñ ko tegee ci table bi mhm, dañ mun a xam lépp mhm. waaye banque yooyu bu fekkee ne ñoom dañ ne mhm. ko ku fa ubbi compte protégé nañ la su leeree loolu non foo dem. Hmm. kon foo dem ah. te ñooñu aussi tey hmm. soo jógee fii ngay nappkat nga jël sa gaal def ci juróomi walis de deux milliards nga jógee fii dem Gambie fa nga teer ah amul ko am ko la fay xaar nga ñëw mu jël xaalis bi jàllale ko loolu mooy évasion fiscale te xaalis boo xamoon nu mu jëlee. xëy hmm. na mën na nekk xaalis boo xam ne. dégg nga implication euh, ci wàllu crime ak yu noonu. nekk mun na am. d'accord mais bii moom. drogue sax mun na am. Mhm. jaay drogue sax jaay nga drogue mi nga déclaré woo ko c'est de l'évasion fiscale mhm. donc il faut que le système soit revu Sénégal tey am na CREI comme ni ngeen ko waxee ñe ngeen am na ñoo xam ne tudd nañ leen ci mais tudd taxu la état bi jël disposition ne ndaram oo waa ji oo ko déedéet l'information il faut la vérifier parce que kuréel gi yi am Sénégal tey bu ñu amee information boo xam ne joxe nañ ko mhm. mais balaa ñu ko génnee ci jikk bi dañ koy vérifier yéen nag la presse yéen bu ngeen déggee rek bind. bu ngeen déggee rek wax. déet loolu kay du presse. waaw ñëpp la. la presse n'est pas pressée la presse moom day recoupé. waaw ñëpp la day recoupé. li li ay ay ay ay ay. voilà ñëpp a ñëpp internet. tey document internet la yoo xam ne tey li génn ci journaux yi. Mm. démb li génn ci journaux yi. Mm. boo ko seetloo ñi ci wax bëri ku ñu nag yaa ngay wax te xëy na sax xamoon ngay wax ndax vérifier loo information ñun dans notre profession dañoo jox un euh, audit à faire. wala une expertise à faire da ngay formuler une opinion mais tu ne qualifies pas l'opération da ngay vérifier mhm. ba xam ndax est-ce que élément bi justifié nañ ko la justifié ko la est-ce que légal na wala légalul écomen loolu nag yaakaar naa ne état sénégalais tey affaire bi éclaté na autorité yi yëg nañ ko la ca war ñu koy def mais mënuñ la ko wax mënuñ ma ko wax mënuñ wax ko kii. d'accord ndax bala nga naan diw sangam. da ngay xaw diw sangam boobu lañ ko waxal est-ce que dëgg loolu dëgg. dëgg ñun aussi bu fekkee nag. ñun aussi booy def dafa am benn affaire Ousmane. da nga def recoupement mais. waaw da nga def recoupement mais peut-être source yi. waaw ba nga ñëw dañoo exploité dama na dama na am na su qu'on appelle. Mm-hmm. la dénonciation. Mm-hmm. xam nga tey kii su ma ko bëggee soxorloo su ma mer moom. ma xamal ko dara. te xam ne c'est pas légal. Mm-hmm. ma dénoncé ko. dénonciation bi mun naa ut journal wala dem ci rajo wax ko mais dénonciation bi mun su ma su ma ñemee li may def mun naa bind lettre ka nga xam ne fa la jógee par exemple tey ah yow tey ah ma xamal la ne am nga chiffre d'affaires cent millions nga déclaré quatre-vingt mun naa benn lettre impôt ne ko sa waaj kat li ma déclaré du dëgg cent millions la am xam nga dama la ko wax le waaye loo koy vérifier da ngay dem ci moom vérifier ko c'est-à-dire il faut qu'il y ait un système mhm. au plan national et au plan international pour d'abord euh, que information bu jot ñu vérifier ko d'abord ensuite par rapport à euh, aux investigations éléments yi ñu am ñu jox ko ay experts yoo xam ne dañ ko analyser d'accord c'est si c'est un problème financier ou comptable, il y a l'ordre des experts comptables qui est là. Si c'est un problème de fiscalité, il y des experts fiscaux qui est là. Maintenant, sont dépassé l'étape de vérification, l'étape de contrôle, la réunion de tous les éléments da ngay ñëw nag ne avocat bi lii kat la gis loo ko gisee le professeur de droit ah ou le juge nga ne ko man lii kat lii laa gisee su ma xalaat lii la moom nag mooy dem comment qualifier infraction bi nga xam ne moom la gars yi commettre mun am nag ce qu'on appelle mm-hmm. le début d'action d'accord enquête et cetera et cetera mm-hmm. je suis pas un juriste ah. mais man noonu la gisee d'accord d'accord beneen ñu xam ay Sénégal mm-hmm. à mon avis gis euh, vrai que on a connu beaucoup de cas ici Sénégal il a la rupture au Sénégal le président la République engagé wu na pour vraiment que boobu am que nit ñi bu ñu leen joxee dara ñu liggéey la di cadre a été voté par l'Assemblée nationale il y a pas longtemps d'accord booy dugg da ngay déclarer da nga am mhm. booy génn nga déclaré d'accord boo déclaré cent mhm. nga génn deux cent cent yi foo ko jëlee. dinañ xool la boo amee salaire dix ah buñ ko cumulé. pendant la période te matu temps ñun la fu jël affaire jëlee. d'accord dinañ ci dellu si waat léegi. waaw déclaré est-ce que amul escroquerie fiscale. waaw c'est possible. <laughs> yëpp mën na ci am dinañ déclaration. parce que ci côté boobu la ñuy jéem a xool. parce que en fait euh, bu fekkee vérification am na mécanisme ko aussi am na fu ñu koy contrôler ci loolu aussi volonté politique da ci war a àndaale parce que bu fekkante ne gës nañ gëstu nañ ba gis. wala enquête bi yàgg na te kenn déggul aussi ndax loolu nit mën na cee continuer di wéy di am yaakaar wala sa xel di kii tey waaw euh, xam nga aussi euh, honorable Diame man je pense que euh, en tant que président de la commission des des finances assemblée bon euh, tey yow yaay yaay personnalité au niveau de l'État du Sénégal muy gouvernement di di institution yi di assemblée koo xamante ni maanaam am nga autorité pour même engager euh, des vérifications pour mbir mi leer mm. mm. maanaam à travers une commission d'enquête parlementaire mm. xam nga euh, affaire affaire euh, fuite des capitaux euh, ak les récentes révélations yi am njëkk a ci par ci Swiss Leaks n'est-ce pas ñu ciy tudd comme ni ma ko waxee sànq benn banque bu nekk Suisse HB euh, HBSC euh, alors donc ñëpp xam nañ banque bi fan la nekk xam nañu yan personnalité sénégalaise ñoom ñoo fa am ñoom lañ tudd ci scandale boobu et ba léegi gisuñu euh, le parlement ñu autosaisir pour leeral Sénégalais yi leeral opinion bi mbir moomu la alors donc loolu je pense que ku mel ni yow yàlla def la ñu am ci plateau bi maanaam damay séntu nga gën ñu leeral loolu ndaxte comme ni ma ko waxee Swiss Leaks amoon na fi affaire Lamine Diack bi am na fi ak euh, yaakaar naa ni coow li li li li li ci ànd lépp mm-hmm. ah, ñu naan sax assises nationales yi fi amoon assises de l'opposition à l'époque ñu tuddee ko assises moom moo ko financé ak yooyu yëpp donc vraiment ñun citoyen lambda ñu bokk ci parti politique ñu bokk ci organisation quelconque de la société euh, bu leen di déglu yéen dañuy gën a séntu ngeen ñu indil ay éclairage mais pas que ngeen naan ñu euh, nañu xaar nañu xaar nañu xaar euh, mbir mi dana mës a leer yi parce que aussi suñu toppee nañu xaar boobu dañuy gis ni am na ñoo leen jàpp ba tëj ci kaso bi te xaaroo leen tuumaal leen loo xamante ni ba léegi barki démb rek Antoine Diome Euh, kii ñu ngi bind banques yi naan ñooñu est-ce que am nañu xaalis ci banque yi nekk yi nekk Sénégal alors que sur la base de yéen présomption yi ngeen amoon si ñoom jàpp ngeen leen tëj ba tey ngeen toog ci plateau bi ni seen dossier c'est classé au Sénégal donc loolu da di gis ni vraiment euh, doxalin bi c'est flagrant que volonté politique amu ci pour tontu mm-hmm. question Ousmane mm-hmm. parce que volonté politique bu ci amoon euh, vraiment je suis même désolé chaque fois ñu ñuy revenir encore ci ci ci ci l'affaire Karim Wade parce que euh, pour yéen ni ngeen koy wax c'est une affaire classée tandis que pour le citoyen sénégalais dafa nekk une question bu soulever xaalis bu baree baree baree boo xamante ni ci ni ngeen ko waxee dafa jaroon ngeen leeral ci sénégalais yi te ba léegi dara leeru ci ñu def manœuvre judiciaire ba ñu ne classé nañu affaire bi tandis que heureusement que d'ailleurs comme on le dit un crime n'est jamais parfait tey en France le dossier et je pense que sous peu même soo leen ne classé ngeen euh, la justice sénégalaise et notamment les autorités sénégalaises seront obligées de répondre nest pas de cette affaire-là qui risque de relever de de de de la crime contre l'humanité mm. car il faut le rappeler notre frère n'est pas un prisonnier ni un détenu c'est un otage mm-hmm. et euh, son cas est considéré comme un crime contre l'humanité kon da nga jàpp ne qui peut le plus peut le moins waroon nañ lii aussi alors donc au même moment mm. bu fekkee dafa am ay autorités yu nekk ci gouvernement bii fi nekk mm. ñu tuddoon leen ci Swiss Leaks wax ban banque la yóbbu woon xaalis ñoom autosaisir wu ñu ci loolu ak léegi ëpp na un an tey affaire Lamine Diack am soo xoolee déroulement bi da ngay yaakaar ni sax gouvernement Sénégal dafay bokk ci maanaam ñi li empêché pour juste maanaam mbir mu leer parce que su France demandé ñu envoyé ko Massata Diack gouvernement Sénégal am doxalin boo xam ne daf mel ni dañuy opposé wu ci loolu donc vraiment ça pose daal alors donc vraiment euh, su ñuy wax foofu euh, volonté politique ndax am na fa wala ndax amu fa da gis ni volonté politique am na pour xëy na détruire certains citoyens sénégalais et protéger d'autres citoyens sénégalais fi may terminer rek mooy mhm. euh, yu ne nii man je pense que li ñu war a gën a mëbët mooy renforcer la citoyenneté économique pour que au-delà de de de de des acteurs politiques que nous sommes di xëccoo parfois ñu jéem a privilégier intérêt Sénégal parce que milliards yooyu di génn ci réew mi tey ji ñaata hôpitaux la mënoon tabax ñaata école la mënoon tabax te vraiment euh, c'est dommage que une partie de la presse sénégalaise parfois du ñu wax wala de ils font semblant de de de de de de de de de ne pas euh, véhiculer parfois la bonne information mais suñu wax vraiment Sénégal mais tout récemment avec euh, l'affaire Petro-Tim ni ñu jaayee Petro-Tim mais ku gis euh, code le code nit jàng ko da gis ni dëkk boo xamante ni dafa am une transaction minière mais dafa am une taxe bu ñu woowee qui est euh, autour de vingt cinq pour cent yoo xam dañ ko war a verser ci état boobu ñëpp gis nañu euh, contrairement à ce que disait le premier ministre euh, Boun Abdoulaye Dionne bi muy def conférence de presse am boobu pour seetal nee na rakku frère président Macky Sall contrairement à ce qu'il a dit mais il s'est avéré que Petrotim dafa jaay pétrole boobu pétrole Sénégal bi jaay ko à la date du 3 août 3 août 2014 la jaay 90 pour cent pétrole bi société bi ñuy wax Timis Corporation bu Frank Timis moom Frank Timis yaakaar naa ni ñi xaw a miin un peu le système financier mondial xam nañ ni euh, délinquant financier la boo xamante ni am na dëkk yu bëree bëri dañu ko fa sanctionné pour que mu bañ a di fa dugg alors donc dañu ko jaay am na quatre-vingt-dix pour cent hmm. du du pétrole du pétrole bi ñu trouvé woon fële hmm. quatre-vingt-dix mais quatre-vingt-dix pour Sénégal waroon na ci am euh, vingt-cinq pour cent ana vingt-cinq pour cent yooyu l'honorable député monsieur le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale du Sénégal est-ce que vingt-cinq pour cent yi dugg na Sénégal ci trésor public bu Sénégal ñu teg ci quatre jours ma xamal la quatre jours le 3 août 2014 le Petro-Tim jaay Timis Corporation 90 pour cent. ñu teg ci 4 jours Timis Corporation muy le 7 avril de la même de la même année donc 2014 Timis Corporation jaay 60 pour cent de ces 90 pour cent à Cosmos Energy ay américains tey jii loolu département d'État américain ubbi nañ ci enquête pour pour leer mbir moom mais pourquoi Sénégal ñun suñu réew amul benn effort loolu est-ce que du liñ ci tudd wala li ñu jàpp ni frère président de la république moom moo nekk ci ginnaaw loolu moo tax ndax li ñu war tudd foofu ci fraude fiscale du sax évasion fiscale mais fraude fiscale la bu leer da nga koy calculer autour de presque cent vingt cinq milliards bu waroon dugg ci le le le le trésor public parce que bu fekkente ni ñoom les 60 pour cent officiellement li américains yi retrouvé les 60 pour cent tourist corporation daf ko jaay Cosmos Énergie à deux cent milliards donc trésor public waroon na encaisser cinq pour cent de deux cent milliards ça cinquante milliards. milliards si donc on a vendu euh, soixante pour cent à à deux cent milliards. Mm. donc les quatre vingt pour cent mën nañu jàpp ni au prorata euh, donc pour euh, mit euh, kii société Aliou Sall bi nu mu tudd sax. Mm. petro daf ko kon xëy na jaayee à trois cent milliards. Euh, Timis Corporation 300 milliards yooyu Sénégal waroon na ci am vingt cinq pour cent muy 75 milliards 75 milliards plus cinquante milliards waroon dugg suñu trésor public mais honorable député mais leeral nañ leen ni loolu fu mu dugg vraiment donc man je pense que mm-hmm. euh, le patriotisme économique mm-hmm. euh, bu ñu koy wax tey jii warul nekk un vingt mots boo xam te ne dañ koy def slogan politique pour xëy na tey jii maanaam am nañu une mainmise sur certains médias mm-hmm. pour yàq deru ñoo xamante ni xëy na ñoo fi nekkoon empêché même ñu mën a exprimer wu pour leeral Sénégal yi ni mu demee donc au même moment mmh. ñoom ñuy protéger ñoo xamante ni vraiment mmh. daal doy na daal li ci nekk lépp daal vraiment kenn mënu ko wax mais comme que yàlla def na ñu toog ak koo xamante ni moom moo war a leeralal Sénégal yi loolu mmh. vraiment donc nous sommes tout heureux euh, et tout oui de donc n'est-ce pas d'être en attente d'accord Pape Ndiaye euh, ci côté boobu nga xam ne gis nañ ne euh, comme li waa doon wax euh, pour d'hommes politiques euh, ont quelque chose à ne pas se bu fekkee géré nañ ay deniers publics professeur Iba Der Thiam waxoon na ko ken mënut a waat dërëmu nguur bu fekkee liggéey nga ci nguur ñu gis ne yu mel nii ça implique des des hommes politiques mais est-ce que aussi war na nekk une arme politique parce que Sango Mbaye dafa mel ni dafa am fu ñuy xool ak fu ñu dul xool waaw parce que man euh, damay dem bay remettre en cause rupture bi nga xamante ne dañuy wax ni am na parce que man li ma seetlu mooy le Sénégal ne manifeste aucune pour jëli fi li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum fraude ak li nga xamante ni moom mooy évasion fiscale te loolu dafa am ay faits yoo xamante ni daf fi nekk di ko wane premier exemple bi nga xamante ni mën nañ ci jo mën nañ ko joxe sang Mbacke fàttali na ko léegi muy maanaam euh, Swiss Leaks bi nga xamante ni benn scandale bu fi éclaté woon daaw mu amoon ay sénégalais yoo xamante ni dañ leen ci doon tugg mais jusqu'à présent amul benn leeral boo xamante ni def nañ ko wala boo xamal ñu ñu xam bu fekkente ni dañ ko def ci suuf te yëguñu ko ñu leeral ñu kat mbir mi dara dara taqewu ci donc loolu benn exemple la buy wane ni par exemple Sénégal du dox ay jéego pour jëli fi pratique yooyu nga xamante ne gënul ci économie yooyu bon bërki Demba Ndiaye gis nga affaire Lamine Dia am na convocation boo xamante ne def nañ ko doomam fële nga xamante ne moom mooy sûreté urbaine mais loolu c'était de la poudre aux yeux parce que li sénégalais yi doon xaar mooy puisque Lamine Dia bi ñu ko entendre dafa ne effectivement am na ay sénégalais yu fi nekk yu bénéficié la donc li Sénégal yëpp doon xaar loolu ñu a set parce mm-hmm. beneen exemple bu fi nekk boo xamante prince ay Sénégal du manifester volonté pour jële fii ay fraude fiscale ak évasion fiscale yi nga xamante dañ koy wax mm-hmm. mais beneen exemple bu gën a dëgër boo xamante ne day wane loolu tamit mooy jëm ci li nga xamante ne moom mooy yenn secteur économique altine bi passé ñu ngi doon célébrer indépendance dégg nga yenn observateurs yi dañ doon remettre en cause li nga xamante ne moom mooy indépendance Sénégal parce que ñoom dañu gis ne système colonial daf fi nekk ba léegi parce que aussi par définition système colonial du lenn lu dul une d'occupation territoriale de domination culturelle et d'exploitation économique exploitation économique bi mu ngi fi ba léegi li koy wane mooy tout le monde s'accorde sur un fait les secteurs clés de l'économie nationale sont détenus xam banques yi la moo xam wàllum hydrocarbures yi la moo xam secteur télécom la moo xam secteur BTP la donc côté boobu également am na fa mbir yu extraordinaire yoo xamante ne yu fay am yoo xamante ne euh, maanaam Sénégal dox ci ay jéego pour maanaam jëlee fi li nga xamante ne moom mooy évasion fiscale buñ doon xayma ci société yooyu yëpp yooyu yëpp euh, euh, maanaam milliards yi nga xamante ne Sénégal yi ñu ngi koy perte buñ ko doon ma kenn xamul ñaata lay toll mais également ay entreprises étrangères parrain saa ñu ñu éponger leen seen dette fiscale bi nga xamante ne am nañ ko loolu également manque à bu mag pour li nga xamante ne moom mooy secteur économique boo demee fële nga xamante ne moom mooy dans la zone de Kédougou mooy fi nga xam dañ fay exploiter lu jëm ci or yeeg yu mel noonu. Mhm. multinationales yi nga xamante ne ñooy exploiter or bi. lañ ciy am sax comme bénéfice moo ëppale yow état du Sénégal bi nga xamante ne yow sa bopp yaa moom mbir mi sa sa sa suuf la nekk loolu également c'est extraordinaire. au moment où ñuy wax waxu pétrole bu feeñ ñuy ragal sax ne ndax loolu du. gis nga mi ngi noonu léegi nag ressources naturelles yu bees yooyu ñu ne feeñ na fi je que prétexte la. boo xamante ni waroon na yóbbu Sénégal xoolaat législation naka la koy soppee moo xam code minier bi ñu fi doon tudd léegi la moo xam code général des impôts leen gën a jox marge de manœuvre pour que a def yenn contrôle parce que ba tam man li may laaj comment se fait-il que évasion fiscale ay milliards yu dul jeex di génn di dem te nguurub Sénégal mënu ko contrôler man loolu dafa ma jaaxal trop te bëgg naa ñu indil ma ci ay explication instrument de contrôle nga a jaar présidence xam ne autonomie bi waroon am ak prérogative yi pour xeex loolu aussi est-ce que am nañ ko les coups de frange pour mën a effectivement donc loolu yëpp ay interrogation la yoo hmm. xamante ne rapport audit yi tamit également euh, xamante ne da ngay xool depuis dix cour des comptes di génnee rapport yeneen corps de contrôle di fi nekk di génnee rapport muy ARM ak yeneen yi nga xamante moom moo fi am te fukki at yi yëpp les mêmes faits la ñuy dénoncé malversation financière détournement de deniers publics escroquerie potentielle des deniers publics cumul de fonctions incompatibles te duñ convoqué kenn parrain sax convocation mën na am mais dossiers gis nañ fa muy mujj CENTIF également mën na transmettre procureur ay dossiers mais gis nañu yoo xam ne dafa yàgg am mais ñu xalaatoon ni régime bi fi nekk bu ñëwee dina ko soppi mais gis nañ ne amul jéego yoo xamante ne def nañ ko pour jëlee ko fi moo tax man paren saa yi damay remettre en cause li nga xamante ne moom mooy rupture bi nga xamante ne euh, euh, moo fi am pétrole beeg yeneen yi je pense que occasion la boo xamante Sénégal mënoon ko saisir pour maanaam xool ay législation am naka la koy soppee dëppale ko ak li nga xamante ne tamit moom mooy ay réalité dëkkam ndaxte li ñu sonal ci dans le secteur de la justice mooy par exemple loi yi nga xamante ne dafa jóge ci kaw dal dal convention yeeg traité par duñ ko dëppale ak li nga xamante ne moom mooy réalité réew mi fii mm-hmm. donc loolu day indi problème yu bu mag yoo xamante ne rawatina tamit euh, la loi nga xamante ne vraiment kooku moom euh, débat une semaine sax doyul pour wax mm-hmm. maanaam obstacle yi nga xamante ne mën na am par rapport à l'investissement par rapport également ak développement secteur économique mm-hmm. euh, may sa baabu ci côté boobu nga xam ne tey booy xool système au Sénégal aussi ñaar da cee nekk yoo xamante ne mën na sax favoriser évasion boobu ngay wax tey ci contexte bi ñu nekk nii ñu wax waxu CREI yi ak wàllu Sentif ak GIABA dañ gis ne sax tey dem na ba euh, solde de dépôt dafa am ci banque yi loo xam boo ko indee immédiatement police dañu ñëw taxaw laaj la foo jiile lii ak yooyu mm-hmm. bundu xataal googu ñuy bundu xataal teg ci ak taux yu diis yooyu est-ce moom ba a favoriser ay nationaux yoo xam dinañ ñeme investir seen xaalis garder ko aussi ci banque yi nekk Sénégal. waaw dispositif euh, en tout cas fiscal bi moom bu Sénégal dafa diis soo kon na tey ci euh, lu ñu bokk sous région bi CEDEAO bi pratiquement ñun ñu ngi ci ay dix neuf point quelque. te recommandation bi sax defe naa ne mi noon ratio yu ba gën a baax daal seize lañ doon wax donc xaw na kawe soo jëlee benn indice rek xëy na TVA yi xëy nañ ko tolloo mais soo jëlee impôt sur les sociétés te xam nga loolu dafa dafa diis xam bénéfice fin d'année entreprise léeg-léeg kenn la trois cent milliards xam nga ko soo ko ci laajee trente pour cent dafa bari nga dem Côte d'Ivoire peut-être ñoom xëy na ñu ngi ci ay quinze pour cent ay yeneen dëkk gën a ndaw ba pare boole koog léeg-léeg ñu génn xëy rek génne benn un pour cent ne la chiffre chiffre dafa dama ci jën un pour cent yoo xam ne tegul fenn xam nga supermarché yi tey soo jëndee ba vingt mille soo ko rombee ci biir fay fay bi dañ la ciy defal un pour cent au delà de vingt mille donc yu sew sewaan la daal euh, yoo xam ne ni fiscalement mhm. dangay gis ne nos états c'est vrai ci la ñuy dund mooy seen gagne-pain ko en fait mhm. loolu lañu am ci lañuy ñun ci lañ leen di laaj tali ci lañ leen di laaj école ba pare ci la ñuy def yëpp mais diisaay boobu soo demee ba ci biir dafay am ñaar day gàllankoor euh, citoyenneté boobu ñu doon wax léegi parce que nit ki dañ may nax wala wala dafa seer ci man daal daxaa mm-hmm. xaalis dafa sa sax ci xol mm-hmm. euh, ñaareel ba mooy euh, xëy na du favoriser benn benn investissement boo xam ne nii investisseur boo xam ne nii soo xoolee xam nga suñ dëkk yi dañoo niroo soo xoolee Burkina ak Sénégal ñoo tolloo lépp ay nombre de population <laughs> ñoo niroo presque climat yi sorewul xam nga ñaari dëkk yooyu suñu nekkee en compétition il faut faire très attention parce que su boobaa dañ naan te dispositif fiscal intérieur bi may na la nga produire Burkina indi ko kii yaa yaa la circulation des bien et des personnes doo ci fay dara kon dispositif su fees su su diisee ci benn fenn rek mhm. da ngay gis ne investisseur mën na yàq euh, ki bëggoon def investissement sooy xool Europe mais France moo ci parce que France dafa bëri loi loi loi loi soo dox ci mbedd mi sax ñu la sa bopp bi ay loi ci parce que soo juumee tarxi sax ñu ne la ñu ne la loi na nangam sangam xam nga léeg-léeg diisaay boobu euh, investisseurs yi dañuy bëgg li doon wax léegi ci évasion bi lu tax nit ñi daw mooy fañ jëm ña ngi ko tudde àjjana muy paradis fiscal àjjana mais dañ ne àjjana impôt lañ la wax waaw waxuñ la ndox mu neex moo leen fa yóbbu euh, hôtel yi rafet yóbbu leen fa dañ ne àjjana ja impôt ja mooy àjjana ja kon nga xam ne paradis fiscal boobu dafa am ay réew yoo xam ne ni ñoo nattal seen bopp ne man fii ku fi dugg rëcc nga ñooñu xëy na ne ni ma fi mais ñun it mën nañ fexe ba suñ paradis romb sax fiscal ndax tey dafa am lu ñu tudde doing business te doing business nattukaay la sooy dem cim réew yor sax xaalis wala ngay voyage simplement même un touriste ordinaire doing business moo doon koy xool da nga naan waa réew moom su ma fa demee transport ba ñaata la location ba ñaata la ndox courant ba ñaata lay fay ndox ma ñaata lay fay ndax am naa sécurité boole ci su la impôt intéressé nga ne waa l'impôt ba ñaata la kon dafay dekk ay variable ni ñuy créer entreprise ndax yomb na wala ndax yombul yooyu day nekk ay ay variable ci biir doing business ba nga xam ne su ma ne la Sénégal ci 19 point yu mu nekk xëy na moo raw te 16 lañ bëggoon am na ñu ne sax ay ay 14 ak 15 yi xaru rek wàcce mm-hmm. mais kon loolu dafay yàq sa duñ business choix Sénégal destination Sénégal dafay day commencé da nga koy xaja xajamal mm-hmm. loolu nag pour euh, ñu mën ko gën gën alléger je crois que état bi mën na euh, xam ne su wàññee ci benn wàll bi euh, c'est-à-dire que assiette bi day gën a yaatu cest à ki ragaloon day mujj ñeme parce que affaire soo ko soo soo ko soo ko wàcc wàccee mun na mun ne daal loo xam ne ni daal na xelu nit ki daal na xelu uh, opérateur économique dootu nëbbatooti day day xam ne lii lii moom taux bu normal la taux bu jaadu la man damay jàpp ne sax su boobaa xëy na assiette bi gën a ubbeeku xëy na rendement bi sax fiscalement eh, eh, voilà dana gën a bëri mais eh, ni su continuer moom gisuma daal ci àddina bi fi ne nii réew boo xam ne nii ah xanaa nga nga nga nekk réew yooyu def drogue yooyu ci côté Asie côté euh, Amérique latine bi. Mhm. boo xam ne nii fi ne nii moom sa dispositif fiscal interne euh, son sonle wut mhm. man damay wax ne état yi dañu gourmand dañoo bëgg xaalis torop torop torop te xaalis bi yaakaaruñ ko lu dul ci taxi yi taxi yi nag vraiment aussi nit ñi ñi ngi liggéey mais mënoo koo fekk di ko fayloo ay patente fayloo ko Euh, IR de nangam sangam fayloo ko impôt sur société fayloo gars yi dañuy faye faye fay ba nga xam ne finalement am na sax ñoo xam ne nii dañuy dañuy xool impôt ni nga ko tëralee ñu xool fu fu parce que léegi mu am ay poche li ñuy wax ay niche fiscale mën na ko ci dugg am par exemple dakaar dañ ne soo fi investir fiscalité bi impôt dana tàng ci yow. Mhm. am na fu ñu koy waxee ci ci code bi. Mhm. soo génnoon tey dakaar mhm. dem tey fi honorable ne muy Foundiougne. mën nga fa investir mu allégé wu lool lool lool donc aussi entreprise yi aussi ak investir il faut ñu xarañ ci ne euh, euh, fépp yëmul daal maanaam hmm. impo dafa am fu muy tàngee mu am fu ñu ko serale am ci ay période ay weer yu muy yoo xam ne nii mën nañ ko ca ndax xëy na voilà yooyu yëpp hmm. day ay jàngat boo xam ne nii il faut nga maîtriser ñaar code des investissements ak nga xam ne soo ko boolee da ngay mën a xam eh, eh, disaay bi wala oyofaay bi fen la daal la xaw a gën a sedd ci ci ci ci yow. Mhm. xanaa ma dolli ci ne. Mhm. Euh, wala ma ñëwaat ci su fekkente ne dafay yàgg. Mhm. Euh, épargne bi ñu doon wax léegi. dafay am solo ndax réew épargne bokk na ci li koy téye épargne boobu soo ko amul pour nga leb xaalis dafay na sax te fii nag impôt bii ñuy wax nii. mën nañ ko transférer ci taux d' intérêt yi ndax daanaka rek impôt la. nga tey soo demoon di leb taux d' intérêt nii xaalis ba banque bi ne 10 pour cent la. Mhm. yow soo calculer 10 pour cent soo la joxee 12000 yow suñu la daggee xam ñaata lañ lay dagg ay 16000 yeneen 3000 lii ñuy wax nii daf ciy du daf ciy dugal dispositif fiscal boobu. Mhm. dafay ñëwaat nasaxal. condition doctorat de prêt yi condition d' emprunt yi et cetera dinaa ci ñëwaat léegi. ci kanam dinaa ci ñëwaat léegi incha allah kon ñu seetaan benn publicité dellu si ci plateau bi. jullit yi mbokku taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér comité de pilotage journée culturelle Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ibnu Cheikhul Khadim ñoo am di leen yëgal fukk ak benneelu édition bi ren nag ñu ngi ko ci weeru avril 2016 ca muy bésub gaaw ñu tudde ko Serigne Abdou Samane Mbacké ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ci teewaayu rendre hommage Serigne Cheikh Khady Mbacké ëpp na Mame Thierno Birahim Mbacké ndaamal daaru yal na nu ko yàlla fayal yokk leeram te taaf ñu ci barkeem bés baa ngi noonu samedi lay doon fanweeri fan ci weeru avril 2016 ci 6 muy 11e édition bi képp ku ci bëgg ay leeral nag mën ngaa jokkoo ak comité d'organisation bi ci 77 323 42 55 77 633 58 63 wala 77 609 44 mbokk yi seen kër tukki gii di Maréga voyage xereñ lool ci wàllu aj ak umra ndax nag du bagage yu réer du roplaan yu tardé Maréga voyage moomee mooy àndaat ak yéen ci aj màkka ak umra gi ci anam yu mucc ayib Maréga voyage di yëngu it ci wàllu njaayum billet avion wàllu assurance voyage xeet bu mu ci mën a doon wàllu yónnee wala jot xaalis fu ngeen mën a nekk ci réew meeg bitim réew Maréga voyage di yëngu it ci wàllu courrier seen i ci biir ak bitim réew Maréga voyage ak aj màkka gi nag boole ca léegi xéewal gu ñu naan plan épargne aj péex ndax cim péex nga koy defee di ndànk mu mat nga aj aji sa poche du ko yëg ngir nag jot ci xéewal googee gaaw leen gaaw dem fa ñoom Maréga voyage ña nga ci rue de Reims angle Malick Sy dend ak Sonatel Ndakaaru téléphone 33 842 33 93 wala dee portable yi 70 107 voyage ubbil na leen it dal bu bees ca Mermoz deuxième porte dend lool ak ambassade Arabie Saoudite ci Ndakaaru téléphone ba ak plan épargne ak péex bu Mariga voyage denc bu jëriñee ca sell mbokk ñu leen di gërëm di leen sant di seen ànd ak rajo télévision Walfadjri fii nag ci émission diine ak jamono ñëw ci ñaareelu wërngalu table bi gannaaw nag publicité boobu. honorable député Babacar Diame parce que ci domaine bi tour de table bi joxe na itam nag ay aspects yoo xam ne wane na ne mbir mi lu naqaree xeex la waaye itam mbir mi dafa laaj volonté politique hmm. beneen bi itam laaj na ay firnde waaye firnde yoo xam ne dañoo am nekkul yu ñuy foraatu te ñu gis ne am na fu mu gaawee am fu mu yéexe ba mel ni am na singil ci mbir mi lu tax sax yéen ñu bàyyi ko lu gën a rëy li tey toppatoo yoo xamante ni dafa xaw dafa am couleur politique hmm. waaw d'abord dama bugg sur le rôle de l'Assemblée nationale c'est un c'est une institution qui légifère mooy day wote ay loi loi yi soit loi soit projet la wala proposition la projet parce que assemblée saytu ko wote ko wala proposition la ñun en tant que député ñoo ko dafa am wax la loi de finances mooy loi bi nga xam ne mooy wote budget budget état bi ñu jox ko nit jox état bi mu exécuté ko gannaaw loolu dañuy wax li ñuy wax contrôle parlementaire maanaam li nga xam ne tey ñun mun nañ ko def mooy contrôler l'exécution du budget contrôle gouvernement bi ci contrôle boobu dafa am euh, plusieurs éléments ki monsieur le professeur war na ko sànq mooy commission d'enquête yoo xam ne mën nañ ko initier sur la base d'informations pour enquêter pour xam lu naka la demee ndax jaar na yoon wala jaar yoon bu boobaa dañu interpeller ñi nga xam ne donc ñoo ko def je pense que assemblée rôle boobu ko joué am na beneen euh, beneen kii muy question orale mooy da ngay convoqué nit ki mu ñëw nga laaj ko boo ko seetloo am na changement bu am yàggul euh, je crois daaw la où tout le gouvernement dañu ñëw assemblée actuellement en accord avec l'État dañuy ñëw bu ñëwee par exemple question d'actualité yi ñu am yaakaar naa ne prochaine euh, réunion de l'Assemblée prochain arrivée du gouvernement di ngeen ci dégg yu bëri mm-hmm. waa député yi question d'actualité day am député yi noté ko bu gouvernement bi ñëwee ñu interpelle le premier ministre de ko ah ñun liñ dégg nag naka la demee ak lu ko waral ak la lan ngeen ci fas yéene def su boobaa premier ministre day seet ki nga xam ne mooy ministre concerné bi mu jox mu tontu moom mu complété donc loolu lu am importance la mën nañu aussi euh, par euh, euh l' accompagnement de la cour des comptes bu fekkee ne tey ñu ngi dem contrôler benn entreprise te amuñu moyen technique pour le faire cour des comptes bu nga xam ne am na ay agents yoo xam ne ñoom dañuy def auditer les comptes auditer les entreprises ñu def appel à eux su ko defee ñoom ñu gën ñu leeral ma xamal ne côté boobu. l'assemblée mu ngi jouer lii am na dëgg na actualité dana dem assemblée lii nañ ci wax question bu am réponse te du tàbbi géej parce que loolu day am réponse hmm. ah li nga xam ne mooy mooy moom nga wax maa ngi ñëw si amu leen laa wax possibilité yéen de façon autonome ngeen def seen commission bopp ah déggul ma la commission d'enquête c'est la commission parlementaire parce que c'était pas une commission avec l'État non non non du tout. parlement parlementaire commission parlement lay ma xam nga man tey en tant que président de la commission des finances mun naa aujourd'hui voilà initier. justement une enquête à travers une commission. c'est ça damay créer benn commission boo xam ne. Euh, damay seet ñi nga xam ne xarañ nañ ci mbir mi ma dugalal ci biir su fekkee ne euh, li ma soxla balaa ma koy am foog ma copter benn expert externe ma copter ko pour ma mandaté ko mu dem. amuñu ay information donc loolu mënuñu ko def. gars yi nee nañ la meilleure manière d'enterrer le dossier c'est d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire. non non pas du tout pas du tout pas du tout enquête kooku comme ni mu ko waxee rek kii def nañ ko war a leeral. Mhm. foog ñu leeral ko. moo moo yoon sax. ah euh, par exemple je vous prends le cas. non euh, non maa nga ñëw rek. non non xaaral ma ñëw rek. par exemple xëy nga xam nga affaire yi opération action bu amee euh, en tant que vérificateur. doo yàkkanti am na vérification qui dure trois ans mon cher ami parce que gars yi ko nëbb nëbb goo xam ne <laughs> balaa nga koy gis dina nga sonn dégg nga de moo xamal ne xam nga damay wax rek en toute connaissance de cause donc tey yaa ngi wax affaire yi euh, Kédougou mais Kédougou les députés dañoo dem ba foofu ils se sont rendu compte mine euh, bi lañ ci war a encaissé ah doyut te loi buñ ko fu ñu fekk la loolu ko modifié premièrement deuxièmement askan wi su boppam amuñ ci dara wala lañ ci am doyut mais on a été là-bas et def nañ proposition pour la modification ah pour le code des mines le code minier dafa woon dañu assemblée bu boobaa code boobu député ñuy waxtaan pour que état bi am ci dara pour que population bi aussi am ci dara. kon boobu mu ngi ñëw kon des mines boobu dana yaakaar naa ne ah man dootul yàlla dana ñëw ah, yàgg naa ko dégg de dana ñëw am na ci yoo xam ne aussi état bi day gagné lu bëri mais askan woo fa ne duñ jot daal waaw mooy li ma la wax rek assistance mooy li ma la wax par exemple tey boo xet fat responsabilité sociale RSE ah l'environnement RSE la hmm. nit ñi man suñ ko hmm. dañ bëgg impliquer les sociétés pour que ñoom une responsabilité sociétale. pour s'impliquer dans la vie économique du terroir dans lequel elles interviennent. parce que tey boo ne société jox ma xaalis ñu ne corruption la. Ah. mais avec la responsabilité le RSE. Mm-hmm. la RSE. ce n'est plus une corruption. non non une volonté délibérée de l'entreprise pour donc apporter sa contribution au développement. Mm-hmm. moi je maire d'une commune. si admettons une entreprise évolue dans ma commune quand je dois construire une route l'entreprise doit pouvoir vous au moins apporter une contribution du dëgg donc loolu la Eiffage buy def ay tali bu demee tege day am lu muy yokk ci affaire yi. wala mu tax jumaa dem. muy sa contribution. est-ce que moom donc pour le cas de Karim Wade dama la bëggoon Karim Wade n'est pas une cible seen frère la suñu frère la waaw. Hmm. man waxtaan naa ci ba tey dama ne Karim Wade papam moo ko responsabilisé dégg nga de yaakaar ko teg ko fa mu ko teg bugguma ci woon dellu si parce que damay indi yenn débat mais dama la ne le cas Karim pour le moment c' est pas un n' est ma ko wax maa ngi ñëw rek. xaw ma waaw maa ngi ñëw rek maa ngi ñëw rek. xaaral ma ñëw rek. gis nga xam nga yow. société civile nga may société civile dégg Karim la ko dugal kaso ñëpp xam nañ ko. ñett ña ko dugal kaso xam nañ ko. ndax ils ont des éléments probants. xaaral ma expliqué rek xam nga yàlla secret lan la def. yàlla secret du dossier. y' a plus de secret. ma ne yàlla secret du dossier. dossier ba tey. boo nekkee boo nekkee défenseur de Karim Wade. y' a plus de secret dossier. défenseur pourquoi pour euh, cassation ci jugement bi. on l'a fait on l'a fait. Ah. Hmm. et vous avez changé le juge. <laughs> d'accord on l'a fait. waaw vous avez changé le juge. léegi voilà léegi. ma ñëw ci. un juge euh, le cas de le cas de. pétrole boobu nga xam ne jaay nañu. pétrole team. waaw maa ngi ñëw rek xam nga waxuma la tur bi dama la le cas de pétrole bi ñu jaay. ku ko jaay une société. lu dëgg une société légalement installée. une société qui a créé une activité qui a fait des investissements qui a produit et qui a vendu ce qu'il a produit. en application de quelle disposition la loi du marché loi du marché mooy dañuy dugg ci marché bi yaa moom sa marché lu nekk nga ko jaay maay jënd lu ma neex lay jëndee ñu daje waxtaan. mais nag la foofu moom xam nga dafa dis. ma ma ma nga ñëw rek professeur de bul toll <laughs> dama bëgg a expliquer la euh, dégg nga tey moi je crois que affaire Petro-Tim wax nga ci le frère de Aliou Sall mais je crois que aujourd'hui lépp lu ñu wax ci frère. Aliou <coughs> Sall parce que c'est un citoyen comme n'importe qui <coughs> koo xam ne tey bu ko neexee mën na créer entreprise bu ko neexee mën na activité comme tout le monde mm-hmm. tu comprends mais ce qui est important à mon avis mm-hmm. li ngeen wax mooy euh, il faudrait que euh, qu'on ait ce qu'on appelle des mesures préventives mm-hmm. pour prévenir lu mel nii maanaam tey il est difficile tey évasion fiscale Euh, nga éradiquer ko pourquoi parce que tout simplement dafa nekk action boo xam ne tey mënoo ko contrôler évasion la wax de ndax tey comme xam nga am na benn cas bu ma sànq nga nekk Sénégal dégg nga de représenter fi benn entreprise suivant un contrat de représentativité contrat commercial yooyu lañ loo jaay ci pétrole dina jox dix pour cent du commission la. foo ko jaayee du fii nga ko jaayee exercice d'une activité entrant dans le champ d'application de la fiscalité est réalisé au Sénégal yow dégg nga de contrat poste nga dem jaay xëy na jaay ba sax cinquante pour cent nga déclaré nga dem nga ne lañ ma jox ci commission buñ ko fi andi nañ ko verser ji Suisse xam nga xaalis ba Suisse ay milliards de Suisse mais xam nga foofa xaalis boobu def évasion bu ñu woon di nga fay TVA parce que prestation de service nga réaliser da nga fay impôt sur le bénéfice parce que da nga réaliser un un bénéfice donc mooy li ma il faut quand même une loi gis nga la loi fiscale elle existe elle existe boo ko jàngatee yoon daan la. mais bii loolu pourquoi ma wax la. moi je suis expert comptable j'ai mon cabinet. bu fekkee fraude client yi. damay toog a toog ba mu yàgg. impôt ñëw dellu seen ko. Ah. oui les inspecteurs ñëw compte parce que tous les ans ils ont un programme de vérification des entreprises. Mm-hmm. bu ñu ñëwee dellu sa benn client. mais duñ la ko wax duñ la wax duñ la ko la duñ la ko yëgal. Mm-hmm. dañuy ñëw rek ñu jëpp ci ci kaw client bi. nga ñëw ñu ne la andi sa dossier yëpp teg ci table ji demal sa yoon nga di teg ci table bi ñu nekk fa nag pendant trois mois di xool lépp lu baax ak lu baaxul et cetera donc je pense que il faut renforcer peut-être les dispositifs de contrôle. pour prévention euh, pour prévention yi. il faut aussi une loi pour une meilleure répression. Hein, de l'évasion fiscale de la corruption il y a là le code de transparence bi ñu voté à l'Assemblée nationale mais c'est pour lutter contre eux. toutes ces choses là. donc Pape Ndiaye. Euh, euh, applicabilité bi nag moom. problème ah. yaa ngi wax affaire yi affaire yi la l' indépendance. Mhm. vous avez parlé de la fête de l' indépendance. vous avez parlé. de l' indépendance du Sénégal. waaw waaw waaw le secteur clé. culturel détenu par les entrepreneurs étrangers. Mhm. vous savez le capitalisme. Euh, il est difficile de lutter avec le capitalisme parce que ñu yore alal ji yow tey su ma bokkee yow benn même espace ma amee sama milliard lu lew nga am ñaari dërëm ma créé entreprise nga créé entreprise ngay def la activité su ma ëpp doole leen da nga mën def mooy seet noo fexee ba arrangé ak man ba lu ma am nga bokk ci ndax ñu nga bos ci dara loolu mu xew daanoo nos pays d'Afrique le capitalisme fort des entreprises occidentales fait que suñ entreprise ndaw yi ñi nga xam ne nanguwuñu aussi fédéré là aussi ça prend le regroupement des entreprises pour constituer une force nanguwuñ ko moo tax gars dañuy noyé tey boo jëlee du duma wax benn entreprise une entreprise de travaux publics qui a quarante machine ay bulldozer ay machine pour si ay yow nga ñëw ak sa travaux publics nga yore saret wala nga yow camion boo xam ne boo jaaree fi mu paat mm. actuellement xam nga on a lutté on a voté une loi qui s'appelle le partenariat public-privé l'offre spontanée et on a dit que entreprise étrangère bu ñëw bu nga installé fii Sénégal yi dañ ci am 20 pour cent loolu déjà c'est une manière d'impliquer les Sénégalais dans les marchés qui sont gérés par des étrangers. loolu c'est la théorie mais et dans comme, la pratique. est-ce que voilà, dina nekk mais c'est c'est la c'est am na ñu koy maa ngi ñëw. Hmm? non les marchés là je ne crois pas que. Ah, impliqué nañu sax non non c' est à ah, dire que boo xam ne. je parle dans le cadre de l' offre spontanée. Hmm. oui c' est le code de marché koo xam ne moom moo ñëwal boppam. waaw ah. hmm. mais loolu gis naa benn marché. amul ak ci dugg. appel d' offre amul amul tout appel d' offre amul tout. on exige d' avoir au moins un partenariat de 20 pour cent. les gens ils ont des partenaires ah. man je vous parle en toute connaissance de cause. d' accord dégg nga ne mhm. man loo xam la léegi. Mhm. léegi yow tey bu fekkee ne amuloo moyen nooy def. code des marchés c'est clair c'est l'appel à toute liberté les maintenant mmh. les installations des entreprises nous sommes dans le monde libre du commerce la liberté du commerce fait n'importe qui peut s'installer au Sénégal ou en Afrique l'essentiel c'est de respecter la réglementation loo ci mën d'accord dëgg la mm-hmm. waaye nag li ñu mën a bañ mooy argent sale dëgg mm-hmm. dolloon ba buñ ko il faut ñu xam et cetera xaalis fu la jógee. mais bu ma nee na ma nee. ah uh-huh. gars yi dañu jël affaire yi jokkoo les étrangers. Uh-huh. non. est-ce que argent sale boobu waaw. waaw waaw bala ngay këf xaaral ma wax benn affaire rek. ah bala ngay këf. dama maa ngi dellu si waat ci léegi yow Babacar Diallo